doom gi mu doon ñaan rek moo jara ñaan léegi ñun tey nag dañuy ñaan doom waaye duñ ko ñaan pour amee ko wat wàllu yàlla ak ak wéttiliku ci wàllu yàlla ak saxal fi ndono yàlla waaye dañuy am doom pour tiitaru àdduna ak alalu àdduna waaye doom bi Sakariya ñaan ni ko ñaanee war na woy jur bu ne loola waral doon sa baay ak donn sa baay bokkul Sakariya da doon ñaan doom bu ko doon waaye ñaanul doom bu ko doon ñun nag doom yu ñu doon la ñuy ñaan waaye ñaanuñu doom yu ñu doon moo te loolu yàlla ci yàlla musal moo tax xiiroo weeg ngaayo bi bëri ci kër yi bëri ci itam héritage yi yàlla ci yàlla musal jàll ci bandonga ñu jàll ci yàlla bu ñax cendu birkaama cendu birkaama bismillah